boobu question de moom sawar naa ci màggal gi eh, xam nga day pàcc boo xam ni ñun cantaakoon eh, yoon wi eh, sëriñ Béthio sunu sang ba da daa daa fesoon ci màggal da doon jàmbaar da doon koo xam ni bu màggal weeru safar masaana teru dootul nekk sax ñi ko xam dëgg-dëgg danañ xam ni kii nekkatu ngir man ngir waajal gu muy waajal màggal gi loolee nag mel na ni wàll nanu ko ndax boobaak léegi ñu ngi ci eh, nañ ko daan waajale rek lañ ko waajale eh, daaw eh, ci ñetti weer la fekk sunu toogaay bii ci daanaka ci ñaari weer ñetti weer lañ ko lañ ko waajal te gis ngeen na na na na mu mujjee da defee nañ ko nan ko nan ko bëggee ñu ngi ciy sant sëriñ Touba ren fañu ci toll mooy njëndum nag bi Euh, te euh, contexte yi tax ñu soppi fu ñu daan jëndee ay nag mhm. mal yi lañ daan am habitude di jëndee ay nag waaye ren euh, yëngu-yëngu ya daa tax pour plus de prudence ma ni bokki taalibe yi nañ leen dem Mauritanie ndax foofee it sëñ Béthio aada na di fa dem ba amoon fa ay wëlëri ci njiitul sëriñ Xaadim sama rak def nañu ab mission ñoo nga fa

Euh, réception bi ñoo ngeen gisaale ko. léegi mën nañ prévoir xam ci ñaata lim la ñuy xaar. waaw loolu nag moom bu ngeen yeggee rek di ngeen ko gis ndax bëgguma fee nekk di avancer ay chiffres sunu sang ba daan na wax naan ab murit du uj bu uj bu mooy di jëf di ko wone ak di ko wax. ku nga xam ne màggal gi dafa tombé benn contexte Covid. sëñ Mountakha am ndigal lu mu ci joxe. mooy respecter les mesures barrières. ca tàkkoon ku leen xam-xam ci wàllu organisation. disposition ngeen jël. Hmm. ci diggante jannatu ak ko waaw euh, ren ay soppeeku sax dina am ndax loolu ginnaaw bu ma ci diisoo ak Serigne Bass Abdou Khadre euh, sunu kilifa gu baax googee may ña occasion di ci potoxlu di ko sant euh, ginnaaw ma ci waxtaan ak moom ren rassemblement yi noonu ñu ko daan defee danañu bâche nag ci pénc mi ndax màggal gi yoor-yoor bi ren. dama ko accès ci njàngum xasida mi ak alxuraan ak bernde danañu jàng ay xasaayit danañu jàng alxuraan ñu bernde loola nag tax na euh, danañu donc ñoom ñooy occupé foofee ñu daan occupé ci biir pénc bi ñoo ñoo koy occupé rek danañu def mbaarum siyaar moo xam ne sëriñ bi euh, defoon na ko mu nekk ci biir kër gi euh, ci mbaar moomu fa ne man pour éviter

danañu contexte bobo, dana tax danañu indi ay ay ay ay modification ca nam daan doxe waaye nag du dara ci bernde yi nga xam ñun bernde moo moom mooy nga xam ni mooy dëgg-dëggi gi luñ ci daan def benn danañ ko ci def luko, ko te ren euh, maa ngi leen koy wax fuñ ci tolloon daaw rek toll nañ fu ko waaw ren mom ren mom du ngeen ci darañ ci yegg ren mom sëriñ bi dimbali nañu ba lu ñu amoon rek am nañ ko

sëñ bi nag daa am question boo xam ni waa àdduna bi yëpp ñoo ni nan la ko laaj ban la gisee mooy gan yëg-yëg nga am keroog bala sëñ Cheikh Saliou ne si kàttal biir kër sëñ Saliou yëg-yëg googu àdduna bi yëpp ah keroog nag sant naa sëriñ Saliou moom bég nañu mbégte moo xam ne seeree lu ñu ko kudul sëriñ Tuubaa ndeysaan ndax foofee mooy dàtt ba foofee mooy sunu cosaan biir kër sëriñ Saliou foofee la nu miin foofee la nu gimmee fa la nu xame lépp fa la ñu sunu bàyyi toqantal fa la nu defale moo tax keroog bi ñu ko joxee wax dëgg yàlla na ma ko waxee woon rek sama xel daa dem ci suñu jàmbaar ja moom Cheikh Béthio xam ni moom moo waral loolu yi cant gi lépp mooy mooy mooy borom ci la ñu eh, doxe noonee eh, jëfe ko ak ci ci mbégte nit ñi nee na li leen yéem mooy keroog ci sëkk ba biir kër sëñ Saliou da ngaa takk sa digg di yanu ci bool yi ni taalibe di ñu ko defee loolu yéem na mbokk taalibe yëpp ah, nag warul la yéem mbokki taalibe man loolu laa mas a dëkke ak ñoom man liggéey bi mhm. ah eh, ku xamoon sëriñ amoon na fulla ju toll ni mhm. daawul yar doomam ci ci bañ a liggéeyal sëriñ bi daa déedéet ñun mhm. danoo mas a laxasaayu mhm. ànd ak moom lu li ñuy lu ñëpp di def moom lañ daan def ci loolu rek lanu lanu yar ci loolu rek lanu xam te ci loolu lanuy des waaw jërëjëf tuub jërëjëf ay waay